ayam nag jigéen ñi kaar déggal sa jëkkër am na solo hmm?
loolu sax
ku jigéen màkk lu mu la jox lu do- lu dul ndoxu sam-sam dëkkul màkk ku mu am sam-sam soxna sa waaw bu mu déggalee borom këram ñu jiit le ba foofu mu am ko inni ëzëkantu min durriyati bi waadin xayri si saaxi inde baytika muharram booba Seydou Ndiane xew fa bu fa xewoon loolu doon sa jëkkër sa nawle la Seydou Ndiane loolu xewul ku sa borom kër wax ne sa wujje nee na naa la génnee jógal mu ne ay ca tànk booy jéggi ma suum ñu gàddu seen mbuusa soow aslaf ci géej feeli yàpp dem ba ci àll bu kenn nekkul mu ne ko maa ngi bëgg a guddee àll te sa wujje wa nga xam ne moo ne naa la génnee man na maa tarde mu engrais ma kon nag fii laa yem toogal na ko fooyal bandi ak liiram xale bi jooy ñaagam ñaagam ñaagam sidi baraam mu tam xamul ko fii nga may bàyyi te lii naan sew siir yi sab jaxaay yi di yuuxu xale bi nekk ndëm waaye ba mu ko ne ndax yàlla la ko sant la góor gi am fit nag na ko waaw mun ko kon de boo yoboo dem kooku ku mu desal doo wéet aj ñaata façon la ñett
tawaaf nag
ah man sëñ bi maa ngi bëgg sànni jembaraay nag ayaamu mun naa nag muuramaati daaxilil kaaba nag muuramaati xaarijil kaaba muuramaati daaxilil xariyati nag ñett ñett la ko yàlla def rek ngir sa imaam Ibrahima Ibrahima Ismaila Isaarata ñoom ñett ak ñett la livraat iqraam ak lu ñu wax tamatoin tawaaf ñett la widaa ibaada ak xuduumi taxaw mi nam ñetti fan la salaasata ayaam la jàmbaraa yi ñuy sànni ñett la uqbatu usta ula kon boo yeboo ne bii maam ibrahima bii xale bi bii soxna si bii maam ibrahima bii xale bi bii soxna si yàlla di ko doxal nag di ko doxal di ko dox ba isa alayhi salaatu wasalaam wasalaamu alaykum wuliddu lu loolu wax wa yoma umutu lu loolu wax wa yoma ubalu ayya bokk nag nag wasalaamu alayhi yoma yamutu kale yamutu la kii umutu la kii muta mu daari wal mutakallimi wahdahu la kii gaayib la ñetti fan nga am moo gën a danseere ci fan nga am bés bi nga jublu dugg ci société bu xat bi bari noom bari coono nga nekkoon ci njàmbur ci sa néeg ndey kenn sa loolu jotewul ak kenn taa ñu xëy buskale la ba nga génn dareet te sunu borom ni mu lay préparé le ci àddina ne la lay préparé la àlaxira ma jox la ci preuve keroog ba ñu lay ngénte laafe ñu doon lekk keroog la ñor déedéet jiitu na loolu de
ande suuna soosu ñu gar daf ko laax ci sa bésam ngénte keroog la sax ñoro ñu góob ko toog na fi at di la xaar xar miñ la reyal nag yéen a maas yaa xar mi ku mag xar mi la mag xar mi ñoo na fi un an di préparé te kenn xamagul lu fi indi xar mi ah xarum diw mi nag tëb xarum diw male mu am ci doom ju góor parce que waa ji dinaa ko may déwén doom moom lañ koy tudd jiitu na c'est bi préparation xam la xudoo mi que bu yàgg si noonu la lay xaaree ci àllaxira xam nga duñ la dugal ci bàmmeel ba noppi malaaka yi door a ñëw ca la leen di fekk buñ lay yor dina fekk ñu ne fa kañ la woon tabaski ci ci ci ci ci fan yii tabaski
Le 4 juin, là.
waaw kañ ba si tabaski boobu ana ban dëkk ngay taxaw bu di ba tëb dëkk jullit am fa ku reeral cere cerey neen Ah bon, c'est vrai. Il a pris les questions.
ana fan ngay taxaw ba sa tabaski ci ba sa dëkk dëkk jullit te gisu la ñuy sokorootu ca tàkkusaan ak di yéex ak lekk res xamula lu jur loolu doom ji nangu loon bàyyam Ismaïla Allahu Akbar. Allahu Eh, eh, nangu ba mu nangu loon papaam pour ñu rey ko ci la xar yi dee ba ilaa yu mar xeet waxuma nag la ko yàlla dencal ci àllaaxira Allahu soxna si nangu bi mu nangu loon jëkkëram ci li ñuy defe ku jógee màkk indi wàlla ndafam sam-sam sans compter lañ ko dencal àllaaxira maa ngi raame yi déggal ga mu déggaloon yàlla ci lañ ko dugalee si taal bi te mënalu ko dara Ibrahima dafa déggal boromam jabaram nangul ko doomam déggal yaay kër gi day dal di dox patron bi bu bàyyi xelam ci yàlla jabar ji respecté ko doomam topp ndigalam day tàlli Kër gi day ratax.
waaw Day ratax.
Kër gi day- waaw Kër gi jëkk a nangu.
mu ngo maanaam kër gi day dal di ratax kër gi day jëkk nangu Ibrahima keroog bañ ko ne cas ci li gën a gàtt daal wala xad aatayna Ibrahima rusduhu min qabl waaw wa kunna bihi aalimin Ibrahima maa ko may ak njub lu jëkk juddoom parce que doonul ci diine kenn yàlla nag teg ciy wax neel moom ci teg te juumuma te juumuma wa kunna bihi aalimin xam naa li ma def Ibrahima maa ko may ak njub lu jiitu juddoom te xam naa li ma def
Ak a xam. Ak a xam.
waaye keroog ba mu ne pap yaa ca ca boppu kaaf yaa abati laa taxbudu li ma taxbudu ma laa yasmau wala yubsiru wala yuxne anka shay yaa abati inni xad jaani min al amri ma lam yaatika fattabini ahdaka sirata sawia yaa abati laa taxbudu cheytaana inna cheytaan kaana lirahmani asiya يا أبت إني أخاف أن يمسك من الرحمن عذاب من الرحمن فتكون للشيطان عراق ñeenti yoon la oo papaam oo bu ne oo bu daw yaram la ndax yaa abati papa papa papa lu dul dégg soo koy diis soxla du gis sooy toroxlu te nit boo ko toroxlu loo war na koo gis li ma taabudu ma laa gis moom soo ko ooyee du la dégg wala yubsiru soo toroxlooyee di ko gis te li gën ci ki ngay jaamu boo ko ooyee ngir tiit mbaa nga oo ko ngir wala mu dégg ci moo na di ci dégg wala yëf ne am ke shay ah moo la dagaasay lu lay lor mënu la xëcc lu lay jëriñ bankal Benn la.
ey yaa abati inni axaafu ah laa taxabu laa taxabudu cheytaan pap ey pap bul topp ndigali seytaane seytaane noonu nit la ci aadama ba léegi yaa abati xalaat naa de yaa ngi dégg waxin wi ni mu amee teggin Baax a baax a baax.
xalaat naa de yàlla laalal la ëllëg mbugal te seytaane la koy yóbbee gis nga jiiñ na ko seytaane jiiñu ko sax baay bi fële daf ko ne su doon ne kuy wax ak kuy wax wax bu dul teggin daf ko naan dof nga kuy jaamu lu dul gis du dégg kooku borom borom ab dof la war a tudd waaye dafa teggin dof gi waxu ko it ne maayara a atini min al ilmi ma lam yatika fatabina ahdaka sirata sawiya papa am na lu ma yàlla déy lu mu la déyul kaay ma tette la mais bi mu àggalee dégg nga li góor gi toog fam tey wax koon yaa ibrahima oo koy ak mu ni waxu ko sama doom dafa jaar ci tur wi ismu alam waroon na ko tontu doom sama awaay bàyyi sama waay kaay ma ànd topp yàlla bu tontu lu dëppoo woon ak waxin wa daf ko naan waay doom sama waay nangam nangam waaye daf ko ne yaa yaa ibrahima la in lam tantahi la arjumannaka waajurni maliya sa gémmiñ gu réy gi boo ko tëjulee dinaa dajeeg yow arab nag bu ne la dinaa la jam toujours ñaare jam ci arab mooy wax la loo mosul dégg te mu ñaaw te mu dëggu ci say way jur loo mosul dégg te mu ñaaw lool te sa ñoom maam defoon ko bu la arab ne boo ma watul dinaa la jam loolu la ci jublu wala boo dinaa toog xeer teg sa bopp yooyu ñaar rek la Ibrahima soo bàyyiwul sa wax ji dinaa la wax lu rëy loo mosul a dégg wala dinaa la dóor dóor yu nit mu ngi ci conversation ak papa di ci digg kër gi xam nga la ngay def waa jur ne Malia sorte si moom.
gënal waay.
ak loo fi am nag. Ibrahima amul nijaay amul papa Palestine ay dëkk dëkk Rome Kawsara dafa dugg ci néegam rek takk pakkaasa taxaw ci digg kër gi ne ko salaama aleyk sa asafra lak rabbi papa arwaat dinaa la baalul ak yàlla dinaa la baalul xëy na yàlla waaye baalu googu alxuraan mujj na ko weddi ndax jaaduwul kenn di baalul sa baay bu di yéefër moo tax ba nga xamee ne alxuraan wàcc na ne maa kaana li muminin an yastaxfira ku jaaluwul ci nit mooy baalul ab yéefëraw walaw kaana doonte ñaari woy juróom la dafa am ñu ne Ibrahima baalu loon na baayam te yonent la yàlla ne du dëgg maa kaana istixfaaru Ibrahima li abi illa an mawidatun wahadaa dige la woon falammaa tabayyana annahu lahu aryun tabarra'a minhu dige la woon jotu ko def daf ko noon dinaa la sa astaxfiru sinu sinu tawsif la maa ngaa dem yàlla naa fa la maxtasalhum ma yaxbudoona min dooni laay man it gor laa ba mu antanoo ci ndeyam antanoo ci baayam antanoo ca dëkk bi ngir man man it ci laa ko wallu may ko ñaari doomi yonent ñoom am nañu bési fet am nañu benn baye bu yaa bu dagg dëkk bi deux kilomètres ñu miir ko sampal ki nag ay estaté stati yi kenn ku ne sa doole rek ngay samp ku am doole yett bant bu rafet moom nga fay samp mu doon yàlla caaxo boo amee doole def betteex nga samp ko muy yàlla caareen soo amee doole xaalis nga def ko muy yàlla sàlleen giir gu ne xeet wu ne dafa am seen yàlla am na ci nag ñoo xam ne seen jos dem na ba di wurus ngir doole yi famille ba su ñuy dem feet nag dañu toggal seen xërëm yooyu ay ñam ku ne teg sa ñam ci sa taatu xërëm ñu dem ca feet ja bu tasee nag ñu jaar fi fab ndab yi na dañ ciy barkeelu xam nga lu tax ñu ci barkeelu xam nga la xam nga tuur loolu bu yox tuur xam nga ne tuur mi borom a ko fi tuur waaw parce que moo fi tuuroon am sow waaw kay moo fi tuur sow sànqale yi ñëw di for sow yi waaw mbott yi seen salaxgale yi ñëw ci si ndax yi seen mbott yi ñëw ci jaan gi seen si ndax yi ñëw ci kon kañ tuur mi yaa ko fi tuur ndeset yooyu la ñuy fab tam di ko barkeelal ko Barkeelal.
Allahu akbar.
ba ñuy dem nag force ni ñu Ibrahima pour yóbbu ko moo tax ñu ne bés pénc bu nit ñi jaaxlee ba dem ci moom pour mu wallu ñu dina leen am naa ñetti wax yu ma waxoon yu dul dëgg dama koy lee yàlla laay xalaat bii may wax ci la inni saqimun fële ci saar yàgg fa tawalaaru foog nga dem téye ci mbagg yi mu wasatu ñu forcé ko mu jóg dox tuuti àggaat suuf ba ñu ne kii daf ñuy tardé bu mujj bi biñ ko yëkkatee dafa foog ñaar loxoom tax ci naqa bi ni sama biir a ngi toj sama biir ay métti indi sa xiim fatawalaahu ñu ne ko fa yow daan di nga dem ba mu séentoo ba ñu dem faraaxi ila ahli ndeysaan te dara jotu ko.
mu tëdd gone ci gidd bi xëyum yene ne maa laakum laa tax laa taakuluunu lu tax palaat yi lekku leen ko mu ngi wax xërëm yi xam na ne xërëm yi du wax ñu ne pat mu ne maa laakum laa tantiquuna ñu ne pat du ngeen lekk xërëm yi ne nii ndeysaan
du ngeen tontu kuy wax ak yow xërëm yi ne nii alquran a xaraax bil yemini am am jàng loolu ah kay xam nga dóoru ndeyjoor a ëpp doora dóoru càmmoñ yàlla ne mu jaayu ci côté ndeyjooram waxul ci côté càmmoñ ak si mi ngi faraaxe ilaali darban ba ja- ba si mi ngi dalee xërëm bii dal ci xërëm bii booba teg mu dal ci bële mu toj falax lax lax lax falax lax lax
dana ko mu de.
ah faaleen wala cekkeen ñoo fa ëppoon doole seen xërëm a ci ëppoon doole waaw mu bàyyee ko fa nag dem fa si miñ ba wékk ko ca ca ngand maama waaw wala nag fekkee tegi ñoo ci ëppoon ñoo ci ëppoon alee ñu jege nag ju- julleekaay ba pour jël si ndab yi ndab yi fekk xërëm yëpp mokk xaaloo man faala hada bi aadatina benn waay nee na ma ab sëriñ ñetti baat la am waaw benn bi su ko waxee rek dafa dafa jaaxle benn bi nag bu ko waxee dafa dégg ci noonam lu ko neex ndeysaan benn bi nag kenn mënu ko ko tax a waxtu du dañ ko buux dara muy boobu ñuy wax jasaaka la wax mu ne jasaaka moom boo ko déggee rek xamal ne sëriñ bi kii la waaw waaw waaw dafa baax dafa baax waaw waaw waaye inna lillahi wa inna ilayhi rajiun boo ko déggee rek euh, am na mu tiit ak dégg-dégg bu ko bi waaye bu ne xaalu xaqasaay nekk si nañ ko ci noonam dafa neex nu mu bëgg a déggoo waaw kañ ñu daal di ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaw man fa rasa bi hadatina ku def jëf ju ñëw ji gardien ba ne samina fakkan yëngu kuruum sànq dégg nañu xale lu góor bu leen di ŋaññi ki doon doon wax maa laakum laa tantiqoon ak maa laa tàkkoon samina zattan yëdu guruum déggoon nañu sànq benn zënëm bu mel ni da leen doon saaga ñu ne na mu tudd nañu ne yaqulu Ibrahima ñu ne faatu bi allah yu nas xale yu góor bu ñuy wax Ibrahima daal moo def lii parce que déggoo ñu wax ñu ne ale nañ ko da liggéey sàllar mi daal dem tëbër jëg yoo ko indi yëpp ci gédd bi ah ah anta faalta haada bi aliatina ya Ibrahima yow yaa def lii mu ne faaloo kabiru na
loolu gën a métti ba
laaj leen ko nganda mii nga xam ne ñëpp a toj ñett a toju te moo gàddu semiñ bi laaj leen ko in kaana yantiqun dem ay yàlla yu mën a wax laaj leen ko côté côté ci rakkam yi ak ak ak ak fereera yi ak jar ak jar ñooñu lan ko bokk lan ko war a laaj waaw léegi
am na nu mbégteeg yaakaar trop ci seen juux gi ngeen fi juux ak teew bi ngeen fi teew ngeen jotal sunu ziyaara ci ñëpp tàll leen seen loxo ñaanu leen tel te nañu fursa soo ko amee tan taayis maanaam jekkoo su la dalee da ngay profité waaw ñii samay jarbaat lañu di samay soppe ci wàllu yàlla ak yonant bi maa ngi jëkk a def mawludu nabi mille neuf cent vingt cinq booba ndawe naa maa ngi fàttaliku ne kees lañ ma dëppal fukki at ak juróom laa am ak yu tome noonu jóguma ci ba samedi passé daaw sant nañ ma conférence bu am doole ulamaaw yëpp daje fa ma yëkkati conférence ba xale fa nekkoon te jàngi te yàgge fa lool jaaxle lool ngir la ñu dégg ci man yàlla dogal ma yàbbi ko fa ba ñu amoon décidé ne dañ may defal fondation Ibou Sakho ba yëkkati woon ko ba jot nañ ci def ay réunion yu am solo daan ko defee ko Ousmane Diagne muy def ay njogonoor yu am solo góor ak jigéen waaye ay awaaye sottee am ñi tëral ko waxtaanatuñ ci waxtaanatuñ ci ba ñoom ñu réunion nag ne baat bi comme ci suma xew-xew lu jiboon su fekkee dañu dafa xaw a nelawit ñun dinañ ko yee doxal ko ba mu sotti na mu ware balañ cee def dara seeti góor gi dëgg la ma jóge ci man am yéene bu rëy ndokk yàlla nag kii moom na ngeen ko seeti kii daal cër bu mu am ci loolu jëm si ci man xeeb naa ko ndax dafa am lu ñu yàlla boole woon te boolewu ko kenn fay ana carte ñoom xërëm yii waaye su ngeen ma waxee dara tooñ ma laaj leen ko xërëm bu mag bii gàdd semi bi ba xam ku def yu ndaw yi nii ci alxuraan dudu foofu am na ñaari sew sew fasalu kabiruhum hada laaj leen xërëm bu mag bi ku tëj yu ndaw yi foofa téere yi ne nañu ñoom ñëpp d'accord nañ ne ci erreur la ñu ne Ibrahima ne ci dëgg mais poussé ba yàggul poussé ba yàggul Iblis songaat leen ñu gënaat nag tontu ko nag nag laqad allimta maa haa'ulaa'i yantiquun diggante biñ ko la suntu laqad allimta maa haa'ulaa'i yantiquun ak bi ma ne fasalu in kaanu yantiquun diggante boobu duggoon nañ fi ci gën ba nar a bàyyi xërëm yi waaye Iblis ñëw roof leen roof bu bees ñu ne ko yaa ko tey da ngay fontoo xam nga nag kii du wax mu ne kon ufil lakum wa limaa ta'buduuna min doon daal yéenay def yéen ak yàlla joo xam ne du wax du tontu yàlla joo xam ne buy taw suñ ko suñ ko rawalewul mu tooy bu daay gi ñëwee buñ ko rawalewul mu tàkkaal ci daay gi kii def di yàlla am yi am dégluwu leen dama leen commencé Ibrahima ci ci ngune sa wala xada wala xada atayna Ibrahima rusdu ci nguneem passaasam yëpp waaw lii nu ngeen sax gos bee ko def gos bee ko def gos bee ko def ñu ne nag kon mënuñu ko feyel lu lakk ko suñu xërëm yi daal ku leen toroxal nii suñu peek yow du mën a doon lu dul taalab taal lakk la ci Amad Sall noo foog ne ne lañu lakk Ibrahima pour taal nii déedéet dañu gas soixante dix mètres ci suuf def ko ci yaatuwaay di ko lemmat di ko lemmat di ko lemmat di ko lemmat di ko utal nag solom boo xam ne digg ba du am dara bi mu génn si bi mu génnee it bàyyiwuñu ñu continuer ba am sept mètres fa araadoo bi kaydan fa jaalnaahul axsariin bismillah erreur bu rëy di ko baalu alaaji soxna si aja bi muy dugg te ma bëgg mu am fu mu toog dama déplacé sama goro te mu toogoon ci wetu soxnaam kooku faute bu rëy la une grande faute mais baal leen ma ko ma ko baal kooku soxnaam ñoo de lool waaw baaxul képp ku bokk ci peuple bi télégramme yi daw Bamako xaay Tambacounda ku mesure war a dem soldat wala nga mesure war a dugg néegub jigéen daa indi une tonne ci mat fonctionnaire yëpp nag ñoo coupé ko seen sold juróom ñaari weer ok est-ce que yal na yàlla wutal lu ko gën te def yool bi mu fekk soxna si mu boobu la ko ci ñu ko daan defal waaw waaw ndeysaan noonu la de alaaji mii li ma buux ci cent mille ci kaaba ga nii nii te de te yàlla képp ku aji mag dellu si sa kër toog ba def ñaaw téef ñaawteef ba réy ci yow ba nga defe ne duma la ko baal jortu ko ko nga jortu ne duma la ko baal moo ëpp bàkkaari mbindeef yëpp peen yi mu santaane mu ne nga def ko ba mu teer ñëw nag defaan njuumte parce que Hasan Salsali yu ne na na ngaa dénk lu tuuti lu sow sa bàkkaar li bu mu rëy ci yow di rëy di rëy da nga ba nga bëgg ba nga bëgg koo ëppal yërmande yàlla comme jaanama nga jëm mooy addis boobu rek képp ku dem màkk aj dellu si defaat lu tax nga foog ne dinaa la ko topp ku boole bàkkaari mbindeef yàlla di ëppale ndax li tax da nga ñaaw njorte jëme ko ci man da nga ma tuumaal kon ku mu ci am nañ ku baax ku yàlla yombaloon yoonu màkk sëriñ bu mag ak mu ne mu dem ba mu yàgg mu ne mu man sama yoonu màkk yu bari yële war na ma laaj ci istixaar ba xam yàlla nangu na ko déet mais ba mu laajee borom bi sama yoon yu bari yi yàlla daf ko ne kër jàmbur ko fa bari yi tànk moom la neex polow waaw foofu parce que yal na yàlla wuutal lu gën loolu te it yool bi soxna si du mënu koo jëriñoo waaye yool bi yal na ko fekk di jaayi rasulillah yi ñu dolli ko ci paam ñu taal juróom ñaari weer def appel ñu wàcc si ci Kuufa nga xam ne moo di capital bi ñu jëfal ko ca tàpp muy boy ndànk ba xam ne matt mi ci kaw ñi nga yëg ni muy rësi di fekk ñi si biir ñu di ko surveiller dem nañu bi benn picc mënatu la naaw tiim biir moomu te deewu la diggante ba ak asamaan dara mën a fee jaar sa oto la keroog bi Namrood ñëwee def si a ngeen koy wax inspection ji ba ne c'est bien ñu jàpp bés sàngam bon koolaa bi ñëw na am nañu sàkk bés am nañu ne samedi la am nañu ne talaata la te yoor yoor ñu indi fanfare yi indi turbine yi notable yëpp yéeg ñu génnee maam Ibrahima futti ko mais moyen bu ñu mën a def ba sànni ko safara wi amul ndax am nañu ne daal fukki junni ñaar lakka nañu ci ñi ko doon jéem a dugal safara wi ala alawtu leen iblis feeñ fa na leen ci réunion bi laa ñëwoon yor sama pexe bopp na ngeen wut lu ñuy wax lenge mooy yooyu ñuy yëkkatee bagage yu diis yi ñoo fa dañ ko jëkk liggéey ñu ut ko yeew Ibrahima dégg ko ca biir ca kaw malaaka ñëw toog ci malaaka nag kenn amul doole yëkkati ko ñu yëkkati yëkkati mu të iblis ñëw ne leen malaaka ci toog mais óole ku jigéen ku sëy mu def boppi neen malaaka du gis boppam ku jigéen ku sëy ñu oo ku jigéen muy ñori mu sóor go malaaka yi daw parce que jóg jibril nag dóor ibrahima allah ka aajatul mu ne ko ana fika la waaw amool ban soxla mu ne ko du ci yow de yow mu ne ko miman mu ne ko ila rabbi ci ko am soxla mu ne ko sama borom mu ne ko fas alhu laajal yàlla boog mu walu la mu ne ko doy na ko xamam li ma nekk doy nag laaj